délégués syndicaux et personnels ñu daal di fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni euh, entreprise boobu boobule mi ngi koy faral euh, di jànkonteel ak lépp rek lu soxal actualité bi ak euh, lile di wàllum syndicalisme file ci Sénégal daañu ko waxtaane ak suñu invité bile di Mademba Camara ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci invitation bi parce que vraiment lu ñu yitteeloon la. Mm-hmm. ñu ngi koy tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim te ñu yeggale ko ci alhamdulilah rabil alamin lu mm-hmm. ñàkk tamit euh, ñu sant suñuy waajur. Mm-hmm. ndax nit euh, fu mu toll war nay sant ay waajuram parce que bi ko suñu borom bindee ba pare. dañ naan pata molette la. nit ki xale pata molette ngay juddoo. Euh, façonné bu ñu la mën a def. ak nu mu mën a doon rek li ci ëpp ci say waajur la mhm. ba ñu santee ñoon julli ci yonent bi ñu ngi dellu feddalu suñu kóllëre mhm. ci Serigne Touba Cheikh Al Khadim bañ nañ ko ba man taalibe Bamba dong lañ may woowee mhm. Serigne Touba Camara waaw <laughs> ban vraiment sama kii yu bari sama page lépp donc vraiment euh, jafe dañuy wax ci intellectuel bëriwul fanatisme moi mais damay jàpp ni sax fanatique laa ci ci ci Serigne Touba et puis dama koy dama koy dama koy assumer donc euh, jërëjëf Serigne Touba donc euh, ñi ngi sant bu baax ci invitation bi je crois que c'est pas la première fois mooy ñëw ci rajo bi ci rajo voilà sa kër la mu ngi noonu Mademba kamara ñu koy remercier bu baax a baax nga wax ñu ci kuréel gi Dakar Bamako ferroviaire lan ci lan la doon yëngatu exactement Dakar Bamako ferroviaire avant ñuy ñëw ci chemin de de fer du Sénégal. waaw xam nga bala ngaa tàmbali ci dakaar Dakar Bamako ferroviaire. Mhm. da ngay njëkkee ci euh, parce que chemin de fer dafa nekkoon ci ay processus yu guddi dafa njëkk a nekk RSC. régie des chemins de fer du Sénégal ñun naat euh, ñun sax boobu fekk ñu fi. Mhm. Euh, ñu ngi dugg chemin de fer bi mu nekk société nationale de chemins de fer. Mhm. loolu ci kàttanu yàlla fa lañ ci fekk ñu ngi fa dugg 91. ba 2003 euh, deux états yi muy Mali ak Sénégal privatiser ko. Mm-hmm. c'était que pour mu pour am pour mu lu gën. donc état yi demoon nañu ba àttatutuñ ko ñu privatiser ko jaay ko ñaari état état yi les deux états jaay ko ay ay privé donc mm privé yooyu bi ñu ko jëndee ñi fi njëkk ñëw ñu koy wax benn directeur bu den tudd Daniel Mas mm-hmm. ak un agent exploitant directeur exploitation j'ai oublié son nom mais ñooñu tane woon nañu bi ñuy dem ñoo nit ñu jaay ko ay américain savage kooku nag indi fii benn waay ju doy waar bu ñuy wax lëmieux mhm. lëmieux moomu nag moom ci ñu njëkk a commencé yàq kër gi ci la ci la bokk mhm. moom bi mu demee fan yi rek maa nga gis benn ancien cheminot bind ni Ablaye Wade dafa tinu sax Jaber mu mu dugg ci mhm. donc Jaber moomu euh, mooy Abass Jaber mooy Abass Jaber donc bi mu fi ñëwee moom it euh, mu dugal ci xaalisam pour mu taxawaat mais man jàpp naa ni kooku sax euh, fekkoon na ko ci yoon muy yàqu mais ñi gën a nërmeel kër gi la ci bokk parce que daf ko joxoon euh, euh, benn avant mu koy jox gorom boobu sax mm-hmm. waa Victoris ñoo ko yoroon mm-hmm. donc ñoom waa Victoris bi ñu demee mu jox benn gorom bu ñuy wax Thierry Martini mm-hmm. donc nag foofu la CNTS FC jógoon fekkoon euh, ak le camarade Cheikh Diop maa ngi koy nuyu de passage le mm-hmm. secrétaire général de la CNTS FC mm-hmm. ñu doon def ce qu'on appelle la rectification des mauvaises privatisations donc mm-hmm. yamul woon rek ci Jaber li mu yor Transrail bëri woon na Sonacos Sodifitex fépp foo xam ne dugaloon nañu fa loxo pour état bi xoolaat ni mu doon privatiser donc ci combat boobu bi ñu ko porté ñun SUTRAI syndicat unique des travailleurs du rail affilié à la CNTS FC bi ñu ko porté Euh, ak état bi état bi tamit euh, bàyyi woon na ci xelam ba en 2016 mhm. mars exactement ci la état bi def ce qu'on appelle le fait de prince nangu ko ci Jaber par le fait de prince donc bi mu ko nango ci la créer pour benn phase transitoire ce qu'on appelle li nga may laaj léegi muy Dakar ba ma ko ferroviaire mhm. ñaari état yi mais loolu dañ ci bi ñu defee ñoom seen i étude dañu woon 7 milliards 500 yooyu suñ ko joxee ku ci nekk. Mhm. wala ñaari état yi ku ci nekk 3 milliards 750 mille. 750 millions autant pour moi danañ ci mën a defaraat euh, kër gi lenn li c'était juste pour deux ans destiné 2 milliards pour salaire. deux milliards cinq cent pour la réfection de euh, bu voie bi voie bi mooy raay bi nga xam ni euh, saxaar dañ fay daw leneen li ñu jënd ci pièces détachées mhm. mais malheureusement tout le temps dama koy préciser l' état les deux génnewuñu en globalité xaalis bi mais dañ ko doon génne ci pàcc pàcc génne boobu ñu ko génne baaxul woon. Mhm. bala suñ koy génne rek euh, période fin du mois day suñ ci génne benn trois cent millions wala cinq cent millions lenn day dem ci salaire lenn li ka fa nekkoon ñu ko wax jour sàmb mhm. jéem ci jënd ay pièces détachées euh, wala mu jéem ci dara ba mujj la sotti. Mhm. donc Jo euh, Samb moom bi ñu fa jógee ci lañ fa nommé benn jeune bu ñuy wax euh, Kibili Touré moom mag moom moo fa nekk moo fa nekkoon Dakar bu ma ko ferroviaire ba bi ñuy créer société des chemins de fer du Sénégal mhm. par projet de loi ñu yóbbu ko assemblée ñu voté ko ñu créer société bi président euh, ci kóoluteem euh, wóoluwaat Kibili Touré moom mu tegaat ko ci bopp kër gi mhm. mais ba mu ko fa tegee nag dañ ñi ñoom CFS mhm. ñooy boole euh, ANCF ak Dakar boobu moo ko ferroviaire yëpp foofu lañ leen war a verser ci CFS donc mhm. foofu la ñu toll. Mhm. mais kuréel gi maanaam chemin de fer du Sénégal si lan la yëngatu parce que am na ñu koy dégg mais xamuñ. waa xam nga si lan la yëngatu lan mooy seen liggéey carrément. xam nga depuis 2011 à Paris je crois 2010 que les mhm. deux états ci la ñu waxoon ne vraiment. Euh, la première privatisation ni ñu ko defee woon baaxul. c'était une privatisation. Euh, intégral mooy ki ngay jox da koy jox lépp jox ko patrimoine jox ko machine yi jox ko lépp privatisation beneen bu bees bii ñu jëm mu hmm. ce qu'on appelle le chemin institutionnel dañ ko tëggoon ci ñetti parti les les deux premières parties mooy chaque état am benn sa su propre société de patrimoine hmm. Mali ñoom créer nañ ko depuis daaw ñoom ñoo njëkk am sop à faire ñun ñooy door a def suñu société de patrimoine hmm. muy lan chemin de fer du Sénégal donc kooku li nga xam ne li ci ëpp mooy mooy euh, euh, dem wuti ay partenaires ñoo xam ni dañuy dawal euh, saxaar mu signé ñoom ay contrat ñoom ñu daw ci raay yi du ñu fay donc tey normalement képp kuy daw ci raay bi chemin de fer du Sénégal nga war a fay. Mmh. muy petit train de banlieue bi nga xam ne sax état moo ko moom. Mmh. muy les ICS muy ak GCO. la dernière partie bi nga xam ni ñun agents yi moom la ñuy gën a xaar ndax jàkk nañ ni fa la ñuy gën a mën a verser wala ci li ñuy gën a mën a yëg suñu bopp. Mm-hmm. mooy euh, la société d'exploitation ki nga xam ni. Mm-hmm. dafay ñëw di exploiter la ligne ferroviaire Dakar ko vraiment ne xam naa ni les de pays. les agents tout confondus euh, les travailleurs loolu la ñuy gën a xaar fi mu toll. Mm. mais souvent dañuy dégg parce que si sa biir wax léegi yaa ngi tudd petit train de la banlieue ñoom tamit ñuy yuuxu ci ay jafe-jafe loolu lan nga ñu ci mën a wax Mademba Camara. waaw damay parce ñoom actuellement seen i jafe-jafe saafarawu na wala dañu nopp rek parce que amuñ pexe. waa xam nga man euh, dama tàmm di wax rek. Mm. Euh, daan naa ci tooñ état bi dama naan le terre. a mis à terre le chemin de fer. parce mm-hmm. que soo xoolee. Mm-hmm. parce que après dina ñëw ci ci ci projet train express régional. donc euh, soo xoolee. Mm-hmm. Euh, ñoom ca tàmbali ba doon nañu daw ak travaux yi. mais au fur et à mesure ñuy dem parce que man maa nekkoon chef de gare euh, Dakar Surnos ñu jóge fu ñu tëj Surnos yóbbu ñu Colobane ni ñu tëjee Colobane dem yóbbu aan donc petit à rek ñoom seeni activité mi ngi doon wàññeeku donc ba finalement bi ñu tëjee gaaru ànd euh, ñoom ñu de depuis ça fait plus de huit à neuf mois ñu tëj ko carrément. maanaam actuellement petit train de la banlieue. fonctionné dawatul mais nag taxaw nañ carrément taxaw nañ ce qu'il faut préciser parce que xam nga tey. Mhm. j'ai mooy état même soo ko di critiquer tamit aussi su fekkee dafa def benn pas boo xam ne da cee góorgóorlu parce que on est sous activité ah muy Dakar moom ko ferroviaire. Mhm. Euh, euh, petit train de banlieue daanaka seen activité taxaw na mais l'état au moins mi ngi gérer. Euh, les salaires des agents. si ñu ngi leen di fay. ñu ngi ñuy fay donc c'est-à-dire que ni ñu ngi génn seeni chèque ce qu'il faut dire rek mooy manquement yi ci am mooy. Mhm. c'est dommage mais mooy euh, nit effectivement loo liggéeyul kenn mënu ko fay mais salaire dafa am loo xam ne dama koy tuddee da koy wodd. Mhm. moo koy jàppale mooy c'est des primes c'est des indemnités. Mhm. te yooyu. Euh, soo nekkul activité mënoo ko nekk tey man je suis à presque vingt neuf ans de service. Mhm. ci loo xam ni nga tàmm benn indemnité boo xam ne mën na dem ba quatre vingt jusqu'à cent mille ñu xëy suba. Euh, d'un seul mhm. dagg ko mu nekk benn jarret boo xam ni mi ngi mel ni rek fu ñu daggee sa benn veine deret bi di tuuru. Mhm. Euh, bala ñu koy arrêté wala yu demee noonu di nga am loo ci ñàkk lu bëri mais à l'impossible nul n'est tenu. pour dellusiwaat ci waa petit train de banlieue. effectivement mais y projet. mais en tout cas chaque mois ñu ngi leen di fay seen xaalis. waaw c'est garanti pour le moment jusqu'en décembre. alors que ñoom liggéey ñu ngi tëdd seen kër. non c'est-à-dire que ni parce que kooku c'est l'état xam nga mm-hmm. état. Mm-hmm. su fekkee ni moom moo am ay projet société bi taxawalul boppam état ci dooleem ak mën-mënam parce que <laughs> l'état prime surtout. Mm-hmm. moo ko taxawal kooku il est obligé de prendre en charge. mais est-ce que dina continuer. voilà xam nga la la c'est là la la la la question xam nga fu ni petit train de banlieue. Euh, euh, euh, ñoom am nañu benn projet avec le directeur Omar Boun Khattab Silla moo koy nuyu de passage c'est un frère mm-hmm. donc am nañu projet projet bi mu ngi tudd grand train du Sénégal c'est-à-dire que nii fépp fi nga xam ni ci biir Sénégal raay jaar fa ñoom jàpp nañu ni mën nañ koo desservir mm-hmm. beneen bi fi may préciser sénégalais yu bëri dañuy wax sax di laajte pourquoi créé wuñu comme ni ñu defee CFF mu dem projet de loi c'était pas la peine le PTB existait déjà dañ koy jël rek exemple ci Dem Dikk mhm. ak Sénégal Dem Dikk mhm. c'était pas la peine c'est juste un décret boo xam ne dañ koy jël benn arrêté pour changer euh, le nom mm. parce que Dakar Dem Dikk lu tuddoon bi muy def Sénégal Dem Dikk muy dem dans euh, dans toutes les régions mm. jaratul woon ñu koy jaar projet de loi mm. donc c'est la même chose ak petit train de banlieue bi nga xam ne dafa jóge petit train de banlieue dem grand train du Sénégal donc c'était une société qui existait déjà donc dañ ko élargir nekkatul seulement pour la banlieue mais dafay desservir yeneen région kooku tam c'est un projet projet la boo xam ne xam naa ñoom nañ ci yaakaar mais taxawagul Mm. carrément moo tax ñoom it euh, nga leen di dégg ñuy ñaxtu ils sa sentent menacés oui xam nga euh, lenn rek le travailleur di am tout le temps euh, ils se sentent menacés mooy Sénégal je le di souvent nous avons problème de communication c'est-à-dire mm. que les états ou bien les autorités fekk fu ñu jëm ak nit ñi cest à mm. ni du ñu communiquer. Mm. daf ci am loo xam ne nit ki fi nga koy yóbbu wala projet yooyu demee noonu. su mm. fekkee ne ña ca nekk ca kaw wala kilifa yi ñoom ñoo koy yëg ñi ci suuf yëguñu ko ñi ci suuf il faut ñu yuuxu ba xam fan lañ leen jëmee loolu rek mooy problème bi mais ñoom tam ils on un, projet. voilà euh, tey jii ma Mademba Camara dinañ la laaj euh, lan mooy seen jafe-jafe actuellement yéen waa chemin de fer du Sénégal lan ngeen di ñaxtu euh, lan mooy seen problème problème mu liggéeykat yi. waaw xam nga au niveau du euh, chemin de fer euh, tey li may njëkkee parce que loolu mënuma ko bañ a wax mooy jafe-jafe bi njëkk. Mm-hmm. mooy bi liggéeykat yu chemin de fer am mooy les agents de gare gar ñi nga xam ni mooy train daf jaar parce que xam nga maa ngi lay wax ni tooguñu ñun carrément mais on a ses activités. Mm-hmm. agents exploitants yi la majorité ñu ngi liggéey mooy ku mel ni man ñun les ñi nga xam ne euh, seen rôle mooy chef de sécurité ñu leen di wax ay chef de gare. ak aiguilleurs yi ñooñu ñu ngi ñu ngi liggéey mais fa ñuy liggéeyee moo dese am commodité mooy euh, euh, parce que c'était des projets yoo xam ne ci terre bee taxoon ñu toj gaar yëpp donc dañ leen defal ay conteneurs. Mm-hmm. conteneurs yi neexul ba neexul mais day tàng jër tey soo demee fu mel ni PK di soo yéegee ci pont côté Pikine euh, soo jaaree côté. Euh, garage bu bees bi comment ça s'appelle boo maraîcher soo jaaree ci kaw ngay séen <laughs> da ngay foog ni benn mbaaru tàng na sax moom mooy PK10 tellement que mhm. ci condition yu ñu nekk toilettes yi ñu am c'est des toilettes euh, mobiles accès bi tamit euh, difficile na ci ci ci ci travailleurs yi donc y a un moment sax ci Covid bi le directeur général góor góorlu na woon ba leen di transporter ci ay oto ñuy dem ak a dikk tey mhm. loolu su mënee di wéy sax parce que tey malgre que du woon confinement mais am na benn état d'urgence bi ñu tegoon boo xam ni. Mm. Euh, dem ak dikk ja euh, yombul woon. donc euh, suñu oto yi ñoo amoon autorisation doon yóbbu agent yi ñu liggéey donc loolu même su mënee wéy mu gën. Mm. beneen bi mooy ñu gën leen a jàppale ci ay seen conditions de travail ci ndekkin bi nga xam ni ñoom nekk nañ ko fa parce que lañ fa war a def ëllëg tabax fa ay gaar ba mu mën a am yenn commode que c'est pas demain la veille. Mm. mais ñu am le minimum beneen bi mooy amoon nañ fi benn prise médicale. Euh, prise en charge médicale bi presque que un cinquième la woon. Mm-hmm. le nouveau directeur général bi mu ñëwee xëy na nee na munu ko woon mais am na lu mu ca defoon la mu ca def nag euh, am na travailleurs yu yu baax na am na ñeneen ñoo xam ne xaw nañ koo xeeb parce que dafa dem à 60 pour cent parce que yoo xam ni dinañ la jël service médical mais tey dafa dafa dem 60 euh, pour cent mais daal tey jafe-jafe yi nga xam ni en globalité travailleurs yi am nañ ko mooy seen ëllëg. Mhm. seen ëllëg maanaam comme ça mu leer. seen ëllëg mooy euh, seen devenir parce que on ne dit l'avenir du chemin de fer wala euh, en général. Mhm. Euh, amul euh, c'est incertain am na ay projets yu teg supposons je le dis souvent. Mhm. dama naan dafay bay ma profité sax duggaale ci terre bi. le train express régional kenn du nii. amul njëriñ wala mënta am njëriñ. pour Sénégal parce que je me rappelle rek bi Ablaye Wade di def autoroute à péage bi nit ñi dégg nañ ci lu ne mais tey euh, dëkk bi ni mu demee euh, su fi péage bi nekkuloon dina doy waar donc tam kooku c'est des trains euh, à grande vitesse yu gaaw yoo xam ni dana la mën a yóbbu fu baree bari mm. mais lii problème bi c'est la la question qu'on se souvent mais est-ce que c'était une euh, priorité pour le. le... est-ce que fi Sénégal toll. waaw euh, priorité la woon. ci ñu ay train express ndax da xool xaalis bi ñu ci def yëpp. te ba dawagul. dawagul suñ ko ci defoon def ko ci yeneen euh, ligne doon kii j'en profit aussi pour bañ ko fàtte dafa benn tubaab bu ñuy wax. Euh, mhm. Julio Dimontier moom mi ngi jógee France ñëw fi. ñu ngi koy tooñ sax di wax naan li muy liggéey est-ce que c'est daf koy def dans le bénévolat mm-hmm. mais mi ngi def benn étude boo xam ne sur euh, euh, dakaar Saint-Louis la ligne dakaar Saint-Louis mm-hmm. maa ngi ko naan malgré que gaaru Kaolack sax dagg nañ ko mais mënoon nga ci boole tamit euh, étude boobu mi ngi koy def mi ngi koy déposer au niveau du secrétariat ferroviaire pour ñu xoolaat tamit liiñ boobu nan la mën a dawee te xam naa ne kooku tam grand train du Sénégal dina ci dina ko gën a mën a jël en charge da ngay xool comme ndegam ñi fi dëkkul seeni réew am yu doy ñoom ñooy ñëw ba suñu réew. Mm-hmm. ñëw fii di def ay études yoo xam ni jàpp ni même ci état bi mu nekk sax suñu suliwaatee raay bi war naa mën a daw. Euh, donc ma dellu siwaat ci sama question bi mooy par rapport ak. Euh, train express régional bi. bon euh, régional bi mais surtout le devenir des des. travailleurs des, des, parce que xam nga chemin de fer dafa nekk entité bu bëri woon métier. Mm-hmm. chemin de fer dama koy yox souvent école la àdduna la chemin de fer ngay dem fekk fa menuiserie fekk fa mécanicien. fekk fa tôlier mhm. fekk fa euh, euh, comptabilité fekk fa télécommunication donc da ngay xool euh, toutes ces tous ces métiers divers yoo xam ni nekk fa parce que pour rappel on avait une école ferroviaire bu mag benn centre de formation boo xam ne sax ñi ngi fay former ba tey mais beneen centre de formation la boo xam ne bokkul sax bu bu njëkk ba nga xam ne moo doon chemin de fer ñooñu ñëpp mhm. ne fa tey daf ci bari ñoo xam ne dañoo toog banque seen loxo malgré suñ leen dee fayit dalul seen xel donc ak projet euh, état bi Euh, mooy euh, le projet des deux états mooy def ñaari société de patrimoine ak société d'exploitation bi mm-hmm. lu ci mën a def mu gaaw mu gën mm-hmm. parce que fi may continuer ci loolu rek fan yi sax interpellé ngeen ma fi par rapport ak euh, ci ci benn journal euh, bi ko fi état bi bi ñuy wax ni jot na fi ci mars en catimini mhm. en jet privé li fi ñëwee ànd ak Bourgi daal di encaissé vingt milliards dem mhm. donc tey euh, euh, mu doon lu ñu metti pour pourquoi mu metti ñu parce que soo xoolee jusque deux ans wala trois ans am na ci ay retraités yoo xam ne ba ñu retraité ba tey amu jotuñu seen indemnité de départ à la retraite mhm. parce que tey mën ngay commencé benn kër di ko tabax wala nga tabax ko ba pare wala nga am projet pour sa tax ndax soo retraité di nga ñàkk lu bari ci sa salaire mm. donc indemnité boobu am na nu mu lay jàppalee loo xam ne soo ci investir mën nga continuer ñooñu ñu ngi toog ba tey jotuñu seen di indemnité donc loolu état bi bi muy génne xaalis yu mel noonu waroon na ci xalaaleertaale mel nga su fekkee dafay régler yenn yenn passif euh, sociaux yi mais jafe-jafe yëpp tamit eh, yéen Mademba Camara lu tax du ngeen yëngu-yëngal comme yeneen syndicat yi ñu ngi ñu ngi yëngal carrément xam nga tey euh, soo gisee waaw si suñu ma yeggalee sax bala may fàtte. Mm. xam nga tey euh, même sur passif yooyu passif sociaux yooyu am na. versement au niveau de l'IPRES kenn defu ko yàgg na moom. Mm. versement au niveau de la bari na. bari na au niveau de la caisse de euh, sécurité euh, sociale. Mm moment donné ñun ñi euh, les camarades syndicalistes ñoo demoon seeti. Euh, le ministre de tutelle à, à l'époque je crois su ma juumal c'était Abdoulaye Daouda Diallo boobu Jo Samba moo fi nekkoon pour ñu boobu ñu ngi doon jox cent quatre-vingt mille mhm. ñu ni nañ ñuy jox au moins deux cent millions mhm. ñu mën ci di régler yenn problème yenn problème yi c'était mën a jël en charge parce que nee nañu ci cent quatre-vingt millions yi il ne donnait que le brut le le net ñu yokkoon ci vingt millions pour ñuy mën a verser IFRES pour ñuy mën a verser de sécurité sociale mais yooyu yëpp taxul it Euh, xaalis boobu ñu mun ko jël euh, en charge. Mhm. wax nga lu am solo mooy par rapport au syndicaliste. ñun soo gisee lu yëngu-yëngu lu woo Mademba Kamara. Euh, xam nga yëngu-yëngal bi dañu am syndicat. ñu am ñu ko jiitee am inter intersyndical. Mhm. mais ñooñu bi nga xamee ne dem nañu ba ñu jàpp ni ñoom yëngatootuñu defatuñu seeni rôle loolu moo indi. le collectif des délégués syndicaux et délégués personnels. parce que maa ngi la bëggoon laaj si kuréel boobu. waaw loolu loolu loolu moo ko indi parce que hmm. euh, il faut saluer de passage un jeune très dynamique très engagé ñu koy wax Babacar Gueye c'est le coordinateur euh, di collectif. Hmm. donc sur le côté administratif vraiment mu ciy def liggéey bu mucc ayib. Hmm. moo ko ñoom Alioune Diagne Matouré Koulim Dioum Cheikh Baye vraiment ñu doon des jeunes yu engagés ñoo xam ne ñu ngi ciy def euh, lu ñu mel ànd kook man mi donc pour. relever au moins le défi parce que dañoo jàpp ba suñu jàpp ba di suñu intersyndical bi nga dégg sax dégg naa ni tas na. Mhm. ndax kenn ko génn na. jaxasoo na daal. <laughs> donc euh, mhm. ñoom fa nga xam ni euh, tey ñoom taxawuñu fa moom a indi fii. Mhm. ñun substituer nañ leen fa pour wax à l'opinion publique pour wax nit ñi que mu am leeral mais ñun moom de notre côté ñi ngi yëngu ñoom ñëpp sax seeni mandat jeex na war nañoo def renouvellement. mais secrétaire général bi ba tey bind nañ ko sax. mais mi ngi koy yéexal mu ngi yéex. parce que xam naa ni li ko xaw a gën a bloqué j'en profite pour le dire parce que def na fa benn gànnuwaalu mandat wu Omar Cissé tuuti lu ko dese woon 6 mois def ñaari mandat de de 3 ans muy 7 ans yoo xam ne nekk na fi man gisuma bilan positif bu mu am. Mm-hmm. mais li koy gën a sonal muy xaw a xëy na peut-être yéex mooy xam nga euh, sur les cokof de syndicats là. Mm-hmm. soo ci versé centrale yi leneen nga war cee def. say activité daf ci am loo xam ne aussi da nga ciy prévoir ëllëg su congrès amee parce mm-hmm. que su amee tous les représentants ñëpp ñi nga xam ni dañoo dekk candidat yow yaa leen war a jox xaalis bu ñu campagne mm. donc euh, tey ci li ñu calculer rek li gën a néew mm. donc war na encaisser plus de vingt millions bon xam naa ne nag il faut que mu leeral fu ñu ko def parce que fa la ñoo dem congrès moom il faut que ñu def bilan financier mm. mais daal euh, euh, en général syndicalisme ñu bëri dañ koy tuddee mais jëf ba nga xam ne moom lañ ko war a jëfee mooy Euh, jël euh, intérêt travailleurs yi. Euh, jiital jiital leen ci vraiment seen i intérêt personnel. kon yow da ngay bokk ci ñuy wax naka nga gisee ñuy wax ni comme état wu Sénégal tout le temps dafay xool nu mu affaiblir les syndicats. pour euh, maanaam liggéeykat yi bañ a yegg fa nga xamante ni fa la ñu war a yegg est-ce que yow d'accord nga si parce que gis nga kaaw sud juste ainsi de suite est-ce que euh, da ngay d'accord ni état bi tout le temps day chercher à affaiblir le syndicalisme au Sénégal. waa xam nga mm, euh, dama koy wax souvent gis nga entre état ak syndicalistes yi entre direction général ak travailleurs yi c'est pas des ennemis aussi c'est pas des adversaires mais ça ils doivent être des partenaires mm. mais. euh, ni les syndicats doo doivent soutenir les états ou bien ay direction générale ci soutien boo xam ne amul sens dama jàpp ni ànd bu mu ciy mën a ànd ñoom rek. Mm-hmm. ànd la boo xam ni dafay tege ci ay anam anam yoo xam ni euh, c'est c'est porteur de progrès supposons tey ñu signé ay pacte yoo xam ne ñu ni tey état bi nii comme bi fi état ak syndicalistes yi la coalition des centrales syndicales signé fi benn pacte sociale de stabilité de stabilité et d'émergence donc loolu c'était juste pour euh, ni leen. fii kat la ñu war a yem nii la ñuy war a def nii la ñuy war a mën a pour mën a yegg fii donc ñu bind ko ci ay këyit. Mm-hmm. ñu ne donc grève duñ ko defati nangam sàngam mais tey euh, comme ñu koy waxee di soutenir rek man jàpp ni centrale yi dañ mm-hmm. koy def parce que mm-hmm. soo xoolee ñu mel ni Chib Gis. tey euh, Boun Abdallah euh, ci li mu nekk rek la war a nekk. parce que xam naa ne ñu bëri xamuñu ko mais doomu cheminot la. donc papaam c'était un cadre des chemins de fer bu mag a mag. donc Boun Abdallah Dionne déedéet pas ba Boun Abdallah Dionne kooku seen Malick Sall mais pas maître Malick Sall Boun euh, mm-hmm. donc ñoom ñi ngi affilié au niveau de l'UNSAS mais euh, waxuma la UNSAS sax mais coalition bi yëpp ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di jàppale comme li ma tàmm di wax rek xam nga dañ naan kilifa diine yi des fois du ñu wax kilifa central itam ñi ngi wax ñi ngi def mais du ñu nekk rek euh, tout le temps Euh, di ko wax def ci suuf di ko def ci suuf des fois nga dégg ñu dàq fi kenn wala ñu wax waxi dàq mm-hmm. nga xëy suba dégg ñu tegaat ko donc ñoom la ciy seen rôle euh, ñu ngi koy jouer mm-hmm. mais des fois euh, fu ñu waree yëngatu rek man ci ñu may damay nekk mais naka le fait que maître Malick Sall dafay dem bay menacer waa Surjus dem sax bay menacer maître Aya Boun Malick Diop. naan ko dinañ la ràññee ainsi de suite waaw mais xam nga loolu taxawaay la rek. Mm. taxawaayu damay wax souvent ni ki ñu jiital. li koy may doole mooy base bi et pourtant euh, man je sais très bien que quelles que soient les menaces lu teguwul ci yoon je ne crois pas que les centrales syndicales wala travailleurs yi dinañ ko nangu. Mhm. man nag dama daan wax benn wax bu am solo dama ko daan wax mes camarades travailleurs dama leen daan wax ni man sama premier syndicat mooy jàpp sama liggéey. Mhm. parce que tamit un syndicaliste ak un travailleur li ngay jëm euh, santuñu la nga tooñ euh, yow fa ngay liggéeyee. mais it du nangu it nga ña ña lay liggéeyal tamit ñu tooñ la ku ci ne tu as des euh, devoirs. Mm-hmm. yoo war a def genre arbitre daal ba pare léegi nga nga door a euh, s'occuper euh, nga door a laaj say droits. Mm-hmm. mais ku ci ne daal am na lu ngi war. mais xam naa ne loolu c'est des menaces rek ci parce que nit la Malick Sall nit la xëy na mën na mer mu toll ci benn état d'âme mais je crois que yooyu mu doon wax yëpp reculer na ci. Mm-hmm. beneen bi j'en profite pour le dire j'ai souvent j'ai l'habitude de le nous savons nous avons tout le temps des problèmes de revendication yoo xam ne c'est de pas des revendications de conquête mm-hmm. conquête mooy euh, nañ ma yokkal nañ ma defal lii nañ ma defal lële mais nous avons souvent des revendications de restitution parce que soo xoolee Boun Abdallah li muy wax yëpp li ci ëpp danaan les accords de 2018. de 2018 xam ne état yi. ñoo ko boo ko signé woon mooy nañ ko appliqué nañ ko respecté donc c' est juste des demandes de restitution des fois nag état yi euh, des fois pour amener un climat social des apaisé li ci ëpp dafay tax sax ñu signé loo xam ne sax. li ci mm. ëpp duñ ko mën. Mm. wala duñ ko mën a respecté wala que jëloon engagement yi. Ah, ci ministère yi problème boobu souvent mooy am ci diggante jàngalekat yi ak état bi les les syndicats. waa mais mais xam nga parce que souvent rek dañuy wax euh, na état bi respecté accord yi mu signé ak loolu moom euh, ça revient tout le temps ça revient tout le temps mais nag jot na euh, no kooku dama ciy interpeller nos responsables seen les centrales que ca tête bopp ba giro ba ñi ci topp ñëpp mm. suma secrétaire général Cheikh Diop Elimane mais ñoom giro ñoom ñëpp jox nañ leen ay postes non c'est xam nga foofu tam danañu fexe ñu respecté foofu nit ñi ah. dañ ciy juum ah ñoom ñëpp jox na xam nga tey tey da ngay dem kenn déggatu leen noo xam nga tey euh, hmm? xamul lu nit ñi lu nit di fàtte xam nga lu nit ñi tamit looloo tax instant lan la nit ñi di fàtte amuñ amuñ ku leen jooyal carrément xam nga lan la nit ñi di fàtte hmm. il oublie ce qu'on appelle la représentativité hmm. mi ngi mel ni tey au niveau de mon entreprise ma ni naa bokk ci conseil d'administration bi mais bokk ci njox ma fa post may dem di fa am benn indemnité du ke dañ maa ger du dañ ma ger donc ça dit ni au niveau de Rip Presse Euh, IPRES ku ko moom kii cotise hmm. mais c' est les travailleurs. ku ko war a jiite donc giro wala benn secrétaire général war na fa war na fa nekk. kon yow d' accord nga le fait que ñu jël ay euh, ñi jiite pratiquement tout toutes les centrales syndicales. di leen doon ay ay conseillers. au niveau du conseil économique social. non c'est-à-dire xam nga tey xam nga lu ma mënta nangu. xam nga xam nga lan laa mënta nangu. xam nga hmm. nit ñi des fois euh, yow li may gis ci Sénégal mooy kaay jiite ma. Ah. mais bul am dara kaay jiite waane bul bul bul avancer c'est ingrat. non côté bi may waxee parce que wax nga ko léegi euh, mooy souvent bu ñu la falee def la un délégué wala jiital la ci centrale syndicale da nga war a jiital. intérêt wu liggéeykat yi. Mhm. mais pas say propre intérêt. waaw mais mais bu fekkente ni yow da nga jiite centrale syndicale dafay ñëwaat ci sama question bi ma la posé sànq est-ce que état bi tout le temps duy chercher à affaiblir le syndicalisme au Sénégal dem di leen tabb di la jox yenn post yi est-ce que état dina la jox yenn poste yi euh, di la fay jox la oto ainsi de suite avec tout privilège yi mu ànd yëpp nga tourné waat di xarab état comme ni nga ko war a xarabee wala comme ni nga mën a xeexee ak moom pour le euh, droit euh, pour les droits des travailleurs est-ce que est-ce que xam nga dama doon développé nga hmm. nga bloqué ma waaw ci IPRES laa commencé woon ko moom nga ni ma travailleurs yi. ñoom mhm. daanaka en en quelque sorte ñoo fa donc war nañoon mën a nekk ci conseil d'administration bi. donc même tey su fekkee ni am na ci benn arbitrage bu fi amoon ba le président de la république jëloon arrêté wala mhm. décret wutoon ku mu fa bëgg a nommer. Mhm. mais tey ñëpp rappelé wu nañu les secrétaires généraux des syndicats central dañu taxaw ba. comme fa bëggoon nommé mënul nekk parce que conseil d'administration mu war a réunir am ko ñu fa teg xam nga kooku leeroon na soo demee au niveau mais c'était au temps de euh, Madia Diop c'était euh, loxo loxo travailleurs yi euh, dugg nañ ci. Mm. ngay ñëw ci au niveau du conseil. environnemental bi ngay wax. Mm. xam nga li ma mënta nangu xeebu ma baykat. Mm. bu ma feneen dañoo jël toutes les couche de la société commerçant amul amul artistes yu fa nekk foofu waa pourquoi léegi. am sax. voilà. Mm-hmm. waa dégg ñu ni conseil économique social environnemental bépp pàcc bu nekk ci réew mi war nga faa am représentant vous acceptez que imam bi nekk fa vous acceptez que euh, euh, cultivateur bi nekk fa vous acceptez que que la nekk fa ñu ñëpp jàppale leen leen guerre syndicaliste bi rek la ñu gis ni moom lañ moom la ñu moom la ñu moom la ñu parce que dañ leen déggatul ñu wax non sa à dire xam nga yéen a ngi nii di jànkoonteel ay tolof-tolof yu dul jeex waaw xam nga des fois euh, ah, dañ naan kenn kenn yoo xawul na nga naan ku c' est euh, la euh, question. waaw mën nga ma bàyyi ma répondre xam nga ko ci ne. Euh, mm. fa nga nekk rek nga mën a défendre. man de CNTS/FC ba ma nekk. ñëpp nangu nañu réew mi yëpp sax damay jàpp ni nangu nañu ki nga xam ni moo ci ëpp li muy wax ci ay tension sociale mu jëm ci ñi nga xam ne dañoo affilié ci moom wala mu doon ñeneen travailleurs yoo xam ne ils sont laissés en rade c' est le ba ci kiiwu Jaber bi. Mm-hmm. ñëpp dégg nañ ko ci mu mu intervenir moom nit la koo xam ni bu ta takkaluma ko ay jàjj di ko tagg mais euh, c'est au vie au su de tout le monde ñëpp gis nañ ni que dafay wax mais nag am na ci loo xam ni ku ci ne am nga sa sa doxalin am na ci ñoo xam ni euh, peut-être du ñu wax. xëy na lobby la ñuy def lobby mooy loo xam ne lañuy ñuy lijjanti wala la ñuy wax. ci suuf lañ koy def mu sotti. ñeneen di wax ku ci ne tu as ta boo xam ni moom ngay moom ngay doxee mais ñun CNTS/FT suñu ligne syndicale c'est de dénoncer li nga xam ne ay manquements yoo xam ni état bi da koy def wala travailleurs dañ koy jàngonteel. Hmm. dañuy gis souvent au devant de la scène pour ñu wax. naka nga gisee projet bus euh, euh, transit rapide bu état wu Sénégal. waaw bon xam nga euh, BRT yooyu. Hmm. Euh, soo demee fépp xam nga des fois euh, Sénégal ils vont ñu décongestionné ko def loo xam ni dafay am rapidité. Hmm. parce que man mënumaa jàpp ni nit mën na jóge Tëngéej wala mbaaw bii rek war a def une heure temps. pour hmm. pour fi. donc loolu. projet la yoo xam ni yu am solo la mais li ma ci rappeler état bi rek mu bañ a doon li nga xam ne moo am ci terre bi que tout ñi nga xam ne dañ leen a yëkkati ñu doon ay impacté ñu ñàkk ci seen kër ñàkk ci seen place vraiment ñu ñu jox leen seen ndàmpaay mm. te jox leen ndàmpaay ya tolloog la nga xam ne fa la ñu nekkoon wala li nga xam ne moom la suñu loi tëral mm. mais man jàpp ma ni euh, bus transit rapide loo xam ni lu lu gën ci réew mi la ndax dana tax euh, parce que pour euh, yow lu baax la lu Ablaye Wade mos a bind sur les mm. euh, nee na développement commence par les voies mm. donc su yox voie rapide parce que voie bi lu mu gën a gaaw rek dafay tax euh, dafay jouer même ci suñu économie mm. économie réew donc man euh, gisuma nga mais am na ñuy wax ni maanaam les priorités sont ailleurs am na yeneen yoo xamante ni xam la réew mi gën a soxla sànq sa yaa ngi koy wax Euh, ci début bi que ay euh, comment dirais-je train express régional c'est tellement coûteux di wax ay bus rapide transit yoo xamante ni vraiment c'est des projets de milliards ci jamono boo xamante ni fii hôpitaux yi pour nga faju sax c'est un problème maanaam priorité il faut ma tooñaale ci euh, le suñu président yi je crois que daal Abdou Diouf laa jàppul ni def na ko fi mhm. mais soo remarqué Ablaye Wade ak le président Macky Sall dañoo bokk defin defin mooy ku ci ne dafa mel ni ku ñëw rek tu essayer de marquer tes empreintes parce que mm. tey euh, da ngay jël lu mel ni ay monument de la renaissance ay leneen ak leneen autoroute à péage kii ñëw def terre donc dafa mel ni mm. ku ci ne su ñëwee rek da ngay def dara loo xam ne day manqué marqué ses empreintes effectivement y a de priorités yoo xam ni euh, réew mi euh, soxla na ko mais yii tam c' est des yoo xam ni euh, vraiment dama ni mënta ñàkk ci ci réew mi. Mhm. te su demee ba sotti rek. Mhm. Euh, dina mën a marron beige nga yow Mademba Camara. non je ne suis pas euh, beige. xam mhm. naa ni euh, effectivement <laughs> jërëjëf bi bi nga ma ko posé non dama vraiment. non samay ah. samay position mooy. waxte dëgg xam naa ni gis nga xam naa li ñu changé naa ko sax mais xam naa ni xamoo ko. mais am na ci sa collègue yu bëri di ko wax moi je suis xalifiste. activiste je suis de taxawu Dakar mm-hmm. te ñu bëri xam nañ ko je même chargé de mission au niveau de la commune de Dieuppeul Derklé mais Khalifa dafa mel ni gars yi ñu ngi koy commencé di xëcc ci suuf de donc ku sore euh, loolu la mm. j'ai combattu le président Macky Sall c'est-à-dire que ni si je dis que ni am naa regret ci ku ma mës a votel ci mm-hmm. mooy c'est le président Macky Sall ah, lu tax lu tax ma bëri ko parce que la taxoon ñu xeex Ablaye Wade mooy euh, moom slogan yam doon wax Euh, naan euh, la patrie avant le partie yooyu mu doon wax yëpp euh, gis nañu ni amul dara loo xam ni taxawoon na ko la taxoon ñu jëlee fi góor gi defe naa ni bàyyi woon fi góor gi avec ses cent ans muy traîner sax moo gën bàyyi fi le président Macky Sall là je l'assume moo tax mbaadu sama maron bi ma sol moo ah, tax ak maa sore ak maa sore maron beige ak maa ko sore dafa tombe rek <laughs> dafa tombe dafa tombe dafa maron dafa bokk ci samay couleur parce que ah. moom moomu ko mhm. vraiment sol ah, rek dañuy jàpp ni Macky nga am man nag réew mi xam nañ ma moom wax fa dëgg yàlla ci ci yëngatu mais moom je suis khalifiste à cent pour cent voilà euh, au conseil du dialogue social bu Innocence Ntap Ndiaye Ndiaye jiite naka nga ko gisee en tant que euh, liggéeykat est-ce que jàpp nga di kuréel gi vraiment am na njëriñ au conseil du dialogue social. waa xam nga moom avant muy nekk au conseil sax c'était le conseil national du dialogue social. nga ah. xam ni un góor gi ñu wax Youssoufa Wade jiite woon ko def. Mm. ci mise en place yëpp. teg ko fi man jàpp naa ne au conseil du dialogue social bi. Euh, mm. am na fi njëriñ. je me demande bien sax euh, ñoom yéex nañu am budget ils sont rattachés même au niveau de la présidence. Mm. donc euh, dañ daan jógu ko daanu mais moom it euh, ci li ma gis mhm. ci approche yu ñu ko approché mi ngi jéem euh, lu mu mën ndax fépp fu mu dégg foyer de tension mhm. dina fa woote recevoir ñooñu bind xam nga des fois dafa am ay institutions yoo xam ne dafa am fu ñuy yem mhm. moo tax mës naa ko wax ci pacte sociale bi Euh, ba may demandé pacte bi ngeen jël xotti. Ah, ba may demandé ñu <laughs> mm. ñu yokk euh, ñu defal inspection du travail inspecteur yi ñu jox leen ay oto parce que ñoom dañ doon wax ni pour ñu dem di visite les entreprises wala ñu dem fenn dañu manqué woon ay moyens euh, am na ci loo xam ne sax lu état bi def la jox na leen ay oto dama daan wax ni war nañoo yokk les prérogatives au niveau de l' inspection du travail parce que des fois. Mm. seeni prérogatives aussi dafa limité donc dafa am foo xam ni mënuñu lu dul conciliation suñu mënul. dañuy transmettre de procès de, euh, de non conciliation yow nga mujj dem tribunal au conseil du dialogue social tam c'est la même chose mm donc xëy na mën na jouer le rôle de régulateur wala comme le médiateur euh, mais moom it day def rek ci rapport am kat ah Dakar ba ma ko ferroviaire amoon nañ fa ay yëngu-yëngutu wala feneen benn entité recevoir naa leen réussir na alhamdulilah réussirul il est obligé de transmettre soit au ministre du travail de tutelle ou la présidence ou bien au niveau du PM euh, ku ci ne kuréel na njëriñ man am na njëriñ parce que xam nga tey. Euh, euh, am na ñu ne amul njëriñ de dañ ko ci war a dindi. bon xëy na ku ci ne ak sa xalaat xam nga loo approché wul. Mhm. Euh, munoo xam ndax am na njëriñ amul njëriñ am na beneen vole boo xam ne ñoom ñu ngi koy def. mooy une de benn vole de formation mooy cest à di formé waat délégué yi képp ku ko bëgg ñu bëri xamuñu ko nag xam nga comme li ma koy wax sànq rek Sénégal la communication c'est la communication qui qui manque donc dañuy dem di nga dem fa soo bindee. les les les centrales syndicales wala les syndicats de base su ñu bindee bëgg benn formation am ay inspection de inspecteur de travail yu fa nekk. Mm-hmm. parce que ñoom ñooy daanaka sax ñoom ñoo formé cabinet ku ci mel ni Omar Fall ñooñu dañ lay defal kii beneen bi nga xam ne ma lay wax ni am na njëriñ. Mm-hmm. su amuloon njëriñ lu mel ni Burkina Faso Mali y a beaucoup de pays de la sous-région ils ont copié. ñun li ñu def ñoom institué ko ci seen dëkk. voilà euh, temps bi pratiquement jeex na ma dem Mademba kamara xanaa ñu laaj la tuuti rek ci sujet euh, d'actualité nga gis ni tarif orange yi yu bees yi cher na ñu bari di di ñaxtu euh, yow naka nga ko gisee consommateurs yi ñu ngi jooy ci tarif orange yi nga xamante ni indi na ko. loo ci wax mm, xam nga tey. Mhm. des fois dama naan dafay am loo xam ne dafay nekk suñu bi réew. Mhm. mu mel ni état bi du ci am euh, régulation wala hmm. du ci am hmm. euh, euh, doole je je précise xam nga fan yii rek ñu dégg génn dégg nañ fi les boulangers hmm. bi ñu xëyee suba bëgg a yokk wax nañ ko sax dégg nañ fi les transporteurs mais ministre dafa génn arrêté ci saa si mais pourquoi Orange malgré que mu ngi suñu réew benn société la boo xam ni tubaab yi ñoo ko moom mais war nañ ci état bi sur les contrant wala convention yu ñuy signé ak ñoom war nañ ci am vue war nañ ci am regard ndax li ñuy def nekk na ci norme parce que ci suba rek maa ngi lii ñuy expliquer wu di wax ni euh, li ñu def ñoom dañoo jàppoon ni sax moo gën ndax euh, dañ cee maye. Mm-hmm. une consommation illimitée de nuit tant tant tant. je me suis dit ni kooku du ñëpp la parce que ku mel ni man 22 heures samay bët xonq na. Mm-hmm. tëdd naa nelaw war a xëy liggéey defe naa lu ban may nekk di nekk di di connecté wu. ci à sept la euh, à sept heures donc xëy na euh, peut-être que dinañ ci dinañ ci dellu ginnaaw. Mm-hmm. mais comme on di rek lépp loo gis rek su amee concurrence rek dina tane y' a d' autres kii yoo xam ne du mu leen defal publicité y' a Tigo y' a Expresso et tout man dama naan. mais amuñ doole. xëy na peut-être que waaw c'est par rapport ak Orange. mënu ñu bëri ak orange mais c'est-à-dire mm. que xam nga des fois euh, il faut que nit ñi euh, comme euh, journée de boycott bi nga xam ne dañ ko décréter tey su su nit ñi amee taxawaay rek ci bañ dara rek man jàpp naa ni que. nit ñi affaire bi ça ne passera pas dinañu euh, dellu ginnaaw. voilà ñu laaj la ci coronavirus bi ak fi mu toll ci ci réew mi gis nañ ni mi ngi gën a bari euh, pratiquement chaque jour dinañ enregistrer trois wala quatre décès ainsi de suite mais gis nañ ni tey jii la Sénégalais yi gën a négliger feebar bi lee di di di coronavirus. am na sax plan de reconfinement dans le monde maanaam ñi tëjoon ji ñu ngi commencé waat di tëj. Euh, yow ban jàngat nga am ci état bi ni muy xeexee ak euh, jàngoro bi lay di coronavirus. man sama gis-gis maa ngi ko gisoon ca départ ba. Mhm. ba ñu demee ba am zéro décès et neuf cas. Mhm. xam nga Sénégal euh, je crois que président Ablaye Wade moo ko doon wax. les gens ici ils sont arbitres ils sont juges ils sont lépp lu ñëw rek nit ñi am nañ ci xam-xam. mais tey su fekkoo ni déglu woon nañu les experts de la santé la ñu mm. waxoon. mooy début bi mais Mauritanie def na ko fi. ba mu ubbee la ko def Mauritanie dañu di départ rek Mauritanie toog nañ fi lu yàgg ba ñun ba ñu commencé am décès te ñoom amuñu dara parce que dañoo fermé woon. Mm. ñun dañu waroon a fermé. parce que euh, ñu ngi sant bu baax euh, sëñ mun Mountakha dafa joxe woon benn élan de solidarité mais nit ñi comprendre ñu ba muy joxe deux cent millions yi. Mm. donc ba mu ko joxee rek mooy. man ki ma dendal su ma ko tanee suñu tëjee kenn dootul bouger kenn dootul def suñ ko defoon une semaine wala quinze jours ku nekk jàppale sa morom kenn du bouger pour neuf jours yooyu je crois que duñu duñu yegg si fii tey état bi dem na ba sur l'économie la situation est incontrôlable euh, maa ngi gis ministre de la santé mi ngi wax sax di euh, suggérer nit ñi ku ci foo mën a tabaskee nga tabaski mais dafa am lu des mm-hmm. lu remarquable et ça m'a fait tellement rire mm. euh, mooy ñenn ñi dafa mel ni gëmuñu ko ba tey parce que des fois dañ lay wax lenn loo xam ne naan waaw man de damay dégg ku ci dee rek wala ku ko am may man ko gisuguma man de xam naa ñu ko am xam naa man ñoo xam ni wàcc nañu liggéey te ci coronavirus te li ko indi du leneen la rek mooy li ñu gën a sàggane man waxootuma sax ay affaire gel ak yu demee noonu raxasoog yooyu marclé man loolu dama ne ci cet la bokk parce que dama naan man nit man man fu man de fu ma génnee avant covid sax bu ma duggee sama kër la may njëkk def mooy dem ci labo dinaa raxasu yu demee noonu mais c'est-à-dire mooy c'est le port de masque xam nga tey dañu wax ni que c'est obligatoire que seulement sur les lieux dañ ci war a defaat régulation boo xam ni gën ci durcir les mesures ba nga xam ni nit ñi dañ leen koy forcer ñu takk leen xam nga nag ñu takk ko c'est que ñun sénégalais dañoo dëgër bopp tey suñu génnoon léegi ñu ànd mën nañoo bala ñoo jéggi benn koñ mën nañoo takk compter cent personnes yoo xam ni takk takku takkuñu masque mm-hmm. mais loolu il faut que virus bi gën a dem gën a dem fan yi rek tey ci suba maa ngi lire par la presse benn docteur nee na su fekkee ni def nañ ko obligatoire nee na suñ ko defee pendant trois semaines la chaine de contamination dina arrêté. Hmm. mais loolu nag kooku c'est communication boo xam ne dañ ko war a passer nit ñi def ko te man loolu laa gëm. man de je l'exige chez moi. mais mais mais autorité sanitaire yi dañoo amatul benn crédibilité wax nga ko sax parfois dañuy wax sax nit yi naan ñii. li waaw mais xam nga des fois tamit. Euh, ku ci ne da ngay amatuñ kenn bàyyeetu leen xel sax. non ñu ngi leen di euh, bàyyi xel kay. comme euh, comme par rapport au début. waaw ah comme par rapport au début mais euh, euh, maa ngi gis alerte le docteur Baboul directeur euh, je crois que de la protection bi nga wax il parle de moyens nee nañu la seen budget de cinquante millions boobu jëruñu leen dar je crois mm. que li ci état bi amassé wala lu mu ci am war na leen gën a verser war leen gën a mën a jàppale mais daal covid bi daal comme que trouvé guñu vaccin ni remède li gën daal mooy nit ñi di gën a respecter les mesures barrières la distanciation sociale Euh, di gën a takk takk masque di raxasu di def gel di di protéger parce que tey soo buggul euh, euh, sax yow soo buggul yow su la faalewul yow boo buggul sax mu mu dal la yow yow dimbaleel ba yaw mu ban a dal keneen mooy nga takk takk masque man daal kooku vraiment moom laay wax voilà Mademba Camara ñu bàyyi la nga tàggatoo auditeurs yi temps bi jeex na mais euh, Sabine maa ngi lay euh, remercier mm-hmm. euh, vraiment di remercier Rewmi FM parce que ce que je souvent mm-hmm. dafa ci am ay rajo yoo xam ne wala télé yoo xam ne dañu ci suñu partenaire parce que danañ ñu permettre au moins ñu leeral askan wi ci li nga xam ni ci la ñu nekk mm-hmm. mais bi nga xam ni mooy sama dernier mot mooy j'interpelle l'État directement l'État central le président Macky Sall en l'occurrence di interpeller la ministre Youm ñu koy wax Thierno Omar Youm teg ci le secrétaire d'État euh, teg ci suñu directeur bu bees bi Kibili Touré di ko ñaanal yan bi oyof que ñu wax ñu fan lañ ñu jëmee. Mhm. gaaw jox le directeur général feuille de route am ñun Dakar agent de Dakar Bamako ferroviaire nga xam ne tey euh, ñu ngi dudd CFS. Mhm. ñu ni dañ fa war a verser mais ba tey c'est pas effective. donc ñun ba tey agent Dakar ba ma ko ferroviaire la ñu ñu wax ñu fan la ñu jëmee ndax euh, garanti suñuy salaire rek euh, du loo xam ni man dal na xel. Mm-hmm. li gën daal mooy lan mooy seeni plan lan mooy seeni plan de relance far lañ ñu jëmee. ndax vraiment les travailleurs voilà ñu koy remercier bu baax a baax Mademba Camara nekk chef gare Dakar Bamako ferroviaire ñu koy woowee léegi chemin de fer du Sénégal nekk adjoint bu syndicat unique des travailleurs délégués syndicaux et personnels ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Léon Paul Mendy ci réalisation bi du Diaw Diallo euh, ci technique bi émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu portaay internet www.rewmi.com wala ci suñu page wala ci suñu compte plutôt YouTube mi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah